ñu nekk ci waajtaayu magalu kazu rajab bi nga xamante ni dinañu ko amal ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai ñu amal ci nag ab ndaje waajtaay bi nga xamante ni rek dajale na kilifa yu diine yi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci administration locale bi suñu sukkandiku ci sëriñ Abdou Fatah Mbacké ndaje bu weesu bi ñu defoon na moo tax ñu dikkaat xool rek nan lañuy doxalee seen waajtaay. dinañ waxtaan nag mbir mi sunu xol seet lool yaakaar nañu daal liñ fi tënk. lépp dana aw yoon incha allahu taala eh, ndax lañ liggéey woon ca njaareem le 16 avril yaakaar naa ne daal fii ne war nañu weesu 60 pour cent wala 70 pour cent kon nag yaakaar nañu ne eh, noonu ñu ko waxe woon dañ ko defee noona ñoo ngi ñaan rek suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko dara xadi Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam eh, ak barke Cheikh Moudou Fadal màggal ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génne ci alhamdulillahi rabbil alamin te ñu yàgg koo fekkee préfet bu Mbacké di xamle ne jël nañ ay motuwaay ci waajtaay bii ci fànn yëpp nag ngir rek bés bi mën a jàll ci jàmm ak salaam. xew-xew bi mag na màggaay goo xam ni suñuy kilifa yi dañoo sant ñu taxaw ci lëkkaloo ci ak commité comité d'organisation bi ba nga xam ni màggal gi dina am ci anam yu mucc ayib ci wàll woow nag am na réunion ba nga xam ni defoon nañ ko ca Njaareem eh, ci fukki fan ak juróom-benn ci weer yi ñu génn ñu ñëw nag ñu jàppoon ni tey dinañu ñëw fii ci def ci li ñuy wax. taxaw setlu ñu japp ko poñ bu nek ñu xol fan lañ ci tollu ndax engagement yi nga xamni kilifa yi jëloon nañ ko ak chef de service ñu xam ñun ci fan lañ ci tollu ñun dal ci walu administration lëkkaloon nañ ak comité d'organisation pour jël matuwaay yi nga xamni màggal gi daal yaakaar nañ ñu bëgg nañu mu am incha allah ci anam mu mucc ay. président bu comité bu organisation bu màggal Kazu Rajab di ñaax ñi nga xamante ni ñoo di chauffeur yi ak jullit yi yépp nag ñu dal ci tali bi su ko defee rek ñëpp mën a ñëw ci màggal bi ak jàmm ak salaam. ku ñëw nga ñëw ci jub rek te ci la nga bëgg waroon wote itam ñu daw ndànk ndax Cheikh Amadou Ba daal wax ni da ngay da ngay téye sa ñaar loxo da ngay def da ngay def sa ñaar loxo bu ne teg bu ne bu ne bu ne yaay nga ne yoll bu ne tek nga ne teg su ko defee rek lépp dana waaye ku ñëw daal na nga na nga jiital taalibe ba noppi teg ak jub suñ ko defee sëñ bi defar lépp ku ci jubari nag eh, sëñ Tuubaa moom dafa ne yoonam bi eh, koo xam ne juba juba bokkoo ci ku jubari moom dañuy génne yóbbu la ci feneen foo xam ne fii ñuy jubari fa lañ nekk loolu daal la ñuy dénk sama bokk taalibe yi. li desandi kay mooy rek ñuy ñaan ngir lépp li nga xamante ni bëgg nañ ko ci bés bi rek ñu mën koo am.